président mën a tudd rek fenn dafa am lu may fàttali ba mu nekkee président assemblée nationale ñu koy xeex Abdoulaye Ndour mi moo jiite woon tournée boobu fépp lañ dugg ci biir si waxal nit ñi ñu xam li nga xam ne moom la Abdoulaye Wade doon def Macky Sall Fatick dafa mës a porter Macky Sall dans le cœur et raison pour laquelle pour revenir en français et résumer le président Macky Sall est l'homme de la situation pour le Sine et pour le Sénégal. Cette déclaration au nom de toutes les femmes de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Fapal. Et c'est la raison pour laquelle je dis bien, si le président Macky Sall veut un troisième mandat, nous allons l'accompagner. Pour les constitutions, Aïda Diouf ñu xam nga yaa ma ko laaj maa la ciy tontu. président Macky Sall bu ne am nga droit def troisième man Faye Birame kenn ma ci ji. kenn xam naa ne sénégalais baax xam lu baax duñ ko gunge xam ngeen tax politique yi mu mën a ci biir réew mi amul benn benn benn famille doomu aadama boo ne mën nga wax ne que politique président Macky Sall ba teewul ci sa dund bu dul salaire bu yokku